Miles O'Jamdong, Sambe Pesi, Sherifou et Job Sabrates, Jila, Sabel et Pamadjan. DJ Pimps de Paris et DJ Dollar. Entrée, fausse 15 000, gradin assis 30 000, VIP prestige 50 000. Disponible sur Jumia, en livraison chez Rapidos, chez Saveur d'Asie, Comptoir et e et sur festidakar.com. Sponsor leader orange. jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokk ñu ngi leen di nuyu am kontaan ak mbégte jàkkaarloo waat ak fii ci wasaare lamb première journée bu sëñ Modou Niang fii ci stade Iba Mar maa ngi lay fay di la bu baax tey ñu ngi ci Iba Mar stade Iba Mar Serigne Modou Niang Mouniang production mi nga xam ne moom laa dippe la xalif général de tous les promoteurs moo fi woote tey ci journée bu rëy le 24 novembre bii nga xam ne moom lay ubbi saison di ubbi saison lamb ji yëpp ñoo am ay combat yu neex nag. Eh, gis nañ Boy Bawol léegi eh, combat bi nga xam ne ni moom la doon bëree mu génn ci ak ndam léegi permis ñoom ak Boy Lo ñoo ci nekk gis nga noonu permis ñoom moo dem ardo demaat ardo eh, muy ñaari yoon Boy Lo nag dafa ñëw indi xeex bu méttee méttee méttee métti mais daal ci kanam incha allah baa ji li lépp leer. jërë ngeen jëf permis ñoom dem na ardo ba ñëw permis ñoom Boy Lo arbitre bi sifflé na ñoom moo leen wan ginnaaw Boy Lo ngeen di jàkkaar lool baaboy waaw waaw door na ñu ngi xeex ñu ngi xeex bo petit bo ñu ngi xeex permignon permignon booloo Ibercule door mu daanu door mu daanu door daanu ñu ngi door mu ngi rokkas xeex nañ o oh, xeex bi mettina na ah, ardo xeex bi metti Basiir bettu ma woon. mujjee naa jeex. bettu ma woon. mujjee naa jeex. li mu jaabal te suuf Sa Kajoor numéro 2 am na sungub bu mu saat ci suuf. Sa Kajoor numéro 2 ngemboo am lu xonq. dama bare takk yu xonq yi rek ci tànk bi moom Kaana Baas. ñu nga noonu bàyyi ji li doxalal. waaw sëñ Bas noonu la demee ar bi ngi wax ak ñoom. sible na. Kaana Gaas. Sa arbitre bi sifflé na Saaka moo ngemb ngemb lu bulee moo ngemboo ngemb lu bulee boo ngemboo ngemb na dóor dóor na yóndu na léegi Kaana Baas a ngi toog di ko déglu ñu ngi leetoo ku nekk mu ngi déglu sa moroom Kaana Baas Sa Cadior numéro 2 tàgg jël na ko Sa Cadior jël na ko na ko la ilaha illallah oh oh Kaana Baas oh Kaana Baas sëñ Baas Kaana Baas daan laaj na Baara Baara nee na pare na laaj na caatu yëmbal caatu yëmbal ngay léemu caatu yëmbal ngay léemu caatu yëmbal nee na pare na arbitre bi sifflé na Bara Thiatou Yeumbeul quatrième combat de la soirée Mouniang production stade Iba Mar Diop Bara ngi dox ci koom Bara daa mel ni defa bëgg xeex caatu Thiatou Yeumbeul Bara ñu ngi xeex ñoom ñaar Bara door caatu Thiatou Yeumbeul Bara ñu ngi jàppante jàppante na ñoom ñaar Thiatou Yeumbeul Bara ku nekk a ngi jàpp sa morom Bara jàppul waaye caatu yëmbal loxo ndi bi jàpp na waaye baara jàppul caatu yëmbal baara baara moo sëgg ci suuf caatu yëmbal yëkkati ko añ na ko mais baara bañ na baara caatu yëmbal baara dafa mel ni jàpp la gën a bëgg waaye caatu yëmbal fi mu jàpp ci ginnaaw baax na caatu yëmbal mbot na ko caatu yëmbal baara caatu yëmbal jël na tànkam caatu yëmbal baara kat appi quatre appuis am na waaw waaw caatu yëmbal daan na ko caatu yëmbal daan na baara xoolal public bi internet ak Bambay 2 ci digg géew bi internet moo wane ginnaaw internet bu daanoo duñ Bambay numéro 2 internet bu daanoo duñ connecté internet bu internet dafa na njariñ ci askan ñu ngi sa garde bi dara oh carte d'appui ah jël amul de internet daanul de ay mbas buñ daanee internet nga ñàkk connexion billaay buñ daanee internet jeex ay mbas buñ daanee internet doo wifi buñ daanee internet connexion jeex ay bas buñ daanee internet doo whatsapp dégg naa fi mbër muñ naan arobas waaw waaye connexion déggaguma ko waaye internet moom mooy ndeyu ñëpp maa ko internet a ngoog internet door nañ ko door na internet waa internet mbaa duñ ko door mu daanu bas gardam bi da koo wàccee de ah, buñ ko daanee day buñ ko daanee internet ngeen. ah daa mel ni ma ngay bëgg a yàbbi protest daanu moom internet. internet moom ngeen jàkkaar lool. mu ngay door door na ko door na ñu ngi xeex ñu ngi xeex ñoom ñaar ñu ngi xeex. door na door na internet a ngay fayu ma ngay fayu ma ngay fayu lambi door lambi door fayoo ko tas ñu ngi jàppantey baaraam door na ko daw nañ ko jàpp ah Pambay numéro 2 ak internet internet jàpp na ko ñoom ñaar ku ci nekk mu ngi jàpp sa morom sëñ Bas mbot na ko mbot na mu ngi xeex mu ngi xeex ñu ngi dóorante ñu ngi dóorante oh mbaa dóor mu daanu du am dóor mu daanu mbaa du internet fay no ñu ngi doon oh dóor nañ ko dóor nañ ko kaawo kaawo kaawo internet internet internet internet garde mbëkk ko arbitre mbëkk ko arbitre mbëkk na ah! xeex internet fay no daan nañ ko oh daan nañ ko Pape Mbaye daan na internet ay bas tay doo wax ay waay sama connexion nee na mooy. ñagas Vita arbitre bi sifflé na. ñagas ak Vita combat bi daa mel ni amul ñu ngi xeex na ko. rëy na waaw waaw daan na ko. capitaine ak Yaxya Diop numéro 2 arbitre bi sifflé na. dimanche 24 novembre. 2019 stade Iba Mar Diop dóor na capitaine dox na ci kaw Yaxya Diop Yaxya Diop rek la capitaine dóor na ko gauche droite capitaine dóor na ko plaqué na ko jàpp na ko capitaine Yaxya Diop capitaine jël na ko ndooba capitaine daan na ko capitaine daan na Yaxya jël bu ay jëlal lii ay capitaine ay Willy ay gàcce ngalaama capitaine ay capitaine capitaine daan na Yaxya Diop jël bu rëy ay Yaxya Diop Yaxya Diop daanu ko jël bu rëy capitaine daa dox ci ko diggante ato ak Safal Safal nga jàkkaar lool Aatu Junior moo la woon ginnaaw ñoom ñaar ku nekk mu ngi déglu sa morom tabal door na ah mbaa du tabal daa saf aatu door mu ngi doorante hey hey aatu hey safal safal loxo góos bi jàpp na aatu loxo bi jàppul oh, safal ah aatu waay hey bas ah bas aatu feeñ waay Atou nee na rëy daanu ma Atou nee rëy daanu ma waa sëñ Bas xanaa ndax yàlla Atou feeñ ah. Siteu moo nduroog Siteu rek moo sol ngemb lu xànq li Bour Sine moo sol ngemb Lagos moo leen won ginnaaw Siteu Bour Sine et eh, arbitre ñu ngi lay too ñoom ñaar. Siteu Bour Sine Siteu numéro 2 Bour Sine atte na Basirou avertissement Bour Sine dafa am ñaari avertissement Siteu am benn waaw moo taxit jërëjëf mbokk yi ñu ngi taxaw kenn koo xamante ne ku ne xam na ko ci làmb kenn du ko présenté muy sëñ Abdoulaye Baye Laat ñu ngi lay waaw fay nañ leen di leen ziar bu baax di leen wax dal leen jàmm di wax ne bisimilah rahmaani rahim ku ne xam na ne tey la ñu ubbi saison bi ñu ngi nuyu Sénégal yëpp di gërëm ñëpp à travers la monde. Baye Laat daaw saison wu daaw làmb noo ko gisee ak saison wu rek ren mën nëpp ëpp ay combat c'est-à-dire lii problème bi ren la saison bi gën a teel daaw boo fàttali ko janvier ubbi saison bi. donc tey yaakaar naa tey ñu ngi 24 des euh, euh, euh, novembre donc kon am nañ presque deux mois avance kon saa à dire que yi mën na gën a bëri boo xoolee fii ba mars date yi gars yi jël nañ ko ah et am na combat yi taxaw ko c'est-à-dire problème mooy combat yu mag yi combat yu mag yi nañu wàññi wax ci presse bi su nekkee danga bëgg combat bu mag les leaders là ay responsable lañu mooy mbër yu mag yi. dangay dem dugg seen biir kaw taan ak ñoom si njëkk ak teraanga mais toog di dugg ci ay presse ngay dégg bëgg naa wax non komba combat bu mag ay centaine de millions koy def lu ay centaine de millions di def kenn du ko wax ci ay journaux te pare woo dangay ngay ba mu pare nga woo presse bi presse bi di bind di am yaakaar keneen su bëggee combat bi du ñemee dem comme si que dafay mel ni yow da nga ci nekk mu lay bàyyi xel nañu bàyyi loolu cest à boo nekkee ci combat demal ba mu jeex soo mënul keneen ku ñëw bëgg mu dëgg lii kese laa ciy wax quoi. waaw président école de lutte Doudou Baka Sarr waaw dégguma sa question. père noo gisee làmb léegi fi mu toll waaw euh, maa ngi leen di nuyu d'abord waaw euh, di leen wax nag ne leen làmb ji fi mu nekk nii ñun dañu nekk ci structure boo xam ne bii mooy ARELS. mu tënk lan. mu tënk l'association de responsables d'écuries et écoles de lutte du Sénégal. mu doon loo xam ne li structure boo xam ne bii dafa jóg pour la progression de la lutte en quelque sorte dans tous les domaines waaw concernant le domaine sportif et administratif ci boor yëpp dañ ci jóg pour faire avancer la lutte et cela en synergie avec les managers et aussi le CNG waaw. fi mu nii noo gisee làmb ji ak xale yi ni ñuy bëree ak comportement wu mbër yi nan lañu ñu war a def ci làmb. waaw comportement mbër moom yàgg na yàgg na bari indiscipline comme am na ci ñoo xam ne ñii am nañ discipline tuuti parce que ñu ngi commencé di gis njëriñu discipline njëriñu sportif nu muy nu muy dundee naka lay programmer son sa vie Euh, mais quand même quand on parle là de la lutte au Sénégal dinañ ne par rapport aux années passées am na tuuti un retard par rapport au combat et aussi par rapport au super combat mais parce que dañu am habitude u euh, privilégier les grands combats comme on dit mais il faudrait aussi que ñu xoolaat la petite catégorie moi je travaille pour la petite catégorie moo tax Quand on me parle de grand combat, je suis à 50% pour. Parce que li may gis xale yi di bëre mag ñi duñ ko bëre boo xoolee cinq wu punkal yu pesé plus de 130 kilos boo ko xoolee deux ñoo ciy neex ñoo ciy jaar yoon alors que booy xool xale yi di bëre euh, il y en a une kyrielle une multitude de gosses yoo xam ne yi ñu ngi bëre am qualité ba pare mën a animer ce que selon di mën a def li nga xam ne moom lañ soxla ci làmb ñun les amateurs les vrais amateurs dañu soxla ay combat yoo xam ne yii nit ñi dañ koy mën a seetaan di di kontaan mais il est difficile nga gis ko ci punkal yi moo tax nous travaillons pour que la petite catégorie am une évolution dans la lutte actuellement waaw. jërëjëf papa ñu ngi lay jaajëf te xam na nañu ne delsi naa ci terrain bi. maam góor daa mel ni làmb na la. maa leen gën a parce que am na lu samay bokk di geesu ci man am na fu nu jóge fu méttee méttee métti foo xam ne du kenn ku dul yàlla te du kenn ku du yàlla te ci kattanu yàlla am na lu nu nam def te dinees ko def amul ku nu ko mën a def ku dul yàlla te am na ñu ma war a bëreet ñu dul booy sama rakk la làmb baaxoo nii c'est normal parce que tey c'est normal daan na samay rakk dëgg la mais la na reyante ba ci kanam am na ñu mu war a beret bawol ñu dut maam góor 26 combats laa bëre 26 xool 26 combats 6 défaites ñi ko ñi ko indi sànq dama see daan ñaar kan ak kan maa daan kéwal maa daan ah, ah, maa daan nukiyaal te ñooñu ñooy tax ñuy wax bawol bawol yi nañoo ñu bëre Baye bi tey lu xew ba nga ànd ak petit babooy indi ko mu mel ni làmb ji dafa am lu mu leen jaral waa parce que ouverture saison la te da koy yóbbu foo xam ne nii fu sore la tamit quoi moom dafa sonn ci làmb waaw làmb daf koo war a mbër kaamil la ñu koy ñaanal yàlla yàlla may ko ndam lu sedd guy ci daraje sëy yan conseil nga koy jox yoo xamante moom la war a fii kenn du ko conseillé parce que fii def na fi lu ne dañoo ànd ak moom entraînement rek ñëw ni ko teg ko ci yoon moom xam na liy yoon te ci bu kanamee tuuti dina ko def garaawul am na lu mu arbitre bi sifflé waat na stade Diom Iba Mar Diop drapeau soxna Nafi Fallou Fall Mouniang production indi ñu fi le 24 novembre 2019 hey lamb door na Petit Baboy cokkaas na mais BMW da ko remise bu dal jàppante nañ sol na ko Petit Baboy BMW jël na ko jël na ko waaye ba tey jàppante bi baaxul jël na ko épercule Petit Baboy Petit Baboy fay na BM Double Vé ngi dóor fay na BM dóoraat na ñu ngi xeex hypercule hey Petit Baboy BM Double Vé jàpp na BM Double Vé taxabal na ko daan na ko hey BM Double Vé daan na ko jël bu rëy hey BM Double Vé daan na Bas. maa ragal mbër mu ñëw ci làmb indi public bu bari ay baas ak i chaise mën nga leen a loué waaye ay nit kenn mën leen a loué sëñ Bas. mbooloo ku ñu topp rek mën nga dara rawatina na sport ku mbooloo dar rek mën nga dara mais gis nga tey euh, BMW wane na ko vraiment tey mën naa ne ñu bari moom lañ defoon favori ñu bari moom lañ ne woon euh, day daan ki nga xam ne mooy petit baboy mais confirmé na ko.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 Gims et Dadju, le samedi 21 décembre sur l'esplanade du Musée des Civilisations.